lu bees tàq tàq tàq lu bees tàq yow ku fi indi lu bees tàq tàq tàq lu bees tàq yow ku fi indi. koro famille bi dina neex. si si moom dina neex. yow tamit bi dina neex si si moom dina neex xam nga nu muy demee neex wax ni nu muy demee eh xam nga nu muy demee seex wax ni nu muy demee asan bi ci kër gi ak awa góoru këram dëgg la seen doom bi ci kër gi di jaay cubu dafa wóor si bu ma gisee xale bi loolu doy na waar eh bu ma gisee xale bi loolu doy na waar xaritu askan la xaritu askan la xaritu askan la moom xaritu bërë xaritu baay taxaat mati seen jigéen yaay mooy jàppal ma benn bi eh, foofu lu fa xew eh, xanaa booru famille bi eh, waaw xarit xiif lañ def dañooy yaakamti quoi xarit saay li ma ciy daj billaay mais booy xaay li ngay photo na ak ki Serigne Touba moo tax nag bàkk yàlla dafa ko daw de. non non man la leer leer laa lay wax maanaam liggéey moom boo ci nee. waaw gëm ko bul diglu kenn. parce que affaire yi moom soo waay. waaw waaw waaw yaay moom boo defee dañuy wax boo deful dañuy wax. loolu la demee nag. moom la ko wax. man daal wax dëgg yàlla booy man xam nga laa jégul. waaw maanaam. li ma daal moom man loolu rek moo am nekk. bàcc non booy loolu daal ma damay comprendre. waaw ñu amoon na ñu bëri doo xam ne bu déggee si gars yi doo mën a dégager quoi comme waaw. dëgg la te man liggéey naa quoi xam nga man man kese sama kër genre mën a lépp moo néew noonu. yow moom sama waay quoi da ngaa bëgg ci man. temps yi temps amul quoi comme ça. waaw dëgg la mais naaj bu tàng bi gars yi ngay dagg sa yitte yi ñëw kon nga xam ne mooy loolu. Hey, hey, hey, ci biir kër jarbaat mu indi la fi dugal la ngay génn dem ba lay laaj nga xam ne man ngi laaj man la dem. yow paa yi mel ni dañoo tas dëkk bi wéer ko dëgg ñu wër kër woon kër bu seen koo tax. wéeru koor bi li ñu def lan la. parce que coow xaar mu ñëw. moom day day coow la. toog lan la. xanaa sa kii ma fekk mu may xas kan la. ah waxul dëgg waxul dëgg lu ma waxul da koo fàtte lu ma yëgul da koo fàtte. Ah, ay ay ay. tawal tawal tawal tawal yow yaa ngi def fii. man de tuuti jaar ma laaj yow la kat. tey kat tey kat mu teg mu kii kii moo jàmm bi. lan. ci léegi yéen moom moo jàmm bi keroog bi fii ñëw dañu fee fekkante bu moo tax. Ah, moo jàmm bi yow foo naan demal demal mu naan. Ah, waaw dara dara xool koo xam ne daa nekk. gaajo xoolal lu non xoolal toogal toogal nga daloo ah am naa gaajo waaye gaajo waaye. waaye gàtt yi dara yàlla bu ñu tax bu ñu demee ah kii de moom la. waaye ñoo ko woon waaye sëñ bi daal daal bi. ah ñoom moom daa wàcc wala. foofu daan na neex.